ci am 1000 francs yamale ko ku yor ay milliards yenn saa nga fekk ko ñex pour dëkk xew yoo xam ah? su baaxee nga Oustaz suñu sëriñ ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar bu baax a di ziar jullitu yàlla yëpp di ziar xalifa bi di ziar xalif généraux yëpp di ñaan jàmm yàlla jëkk yàlla jàmm mujj yàlla defal ñuy xéewal ci barke yonent bi tey ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy tudd Oustaz Modou Fall daal di la fiy fekk ñu mënee ñëwal ci sa digganteeg moom moom mi nga xam ne mooy Oustaz Modou. waaw Oustaz Modou euh, dafay xalitu yëpp di soppi ñëpp su fekkee nit ku baax nga wala jullit nga même boo jullit soo déglu ay waxtaanam di nga da ngay bëgg day nekk si moom rek nekk fi waaye yàllaa ko defal loolu boo nekkee nit ku baax aajowul ci julit nag nit ku baax aajowul ci jullit dañ ko séentoo ci jullit mais aajowul ci jullit mais moom kuy waxal yàlla nit ku baax la nit ku ma sopp la ku ma bëgg la te jot amul fi nu nekk nii moo tax ma dérange sama dëju pap dama geesu rek gis ko mu toog ci laa ko gën a jàpp jàppoon naa ko waaye dama geesu gis ko ci dëju sëriñ bi mu toog ma jàpp ko dama ko jàppoon mu yokk ci man yàlla dogal eh, xew-xewam bi mu wax ma ko démb laa jóge tukki mais ma ne lu mu métti métti gor-gor rek dinaa fi ñëw ku baax la ñu ngi koy ñaanal leeram gii mu am yàlla ko yàlla yëkkati defal ko ci xewal defal ko saadatu daarayni su ko defee ñëpp la ko defal Cheikhul Khadim Seydi El Hadji Malick mag ñëpp la ko defal parce que mag ñëpp lay waxal ku gis ñoom Oustaz Pape Anna Gaye nekk fi nga xamante ni am na fu mu toll ci diini kon lenn rek lañ amante moom ñaanal ñaanal ko mu gudd fan am ay xéwal yàlla musal ko ci ndog-ndogu àddina yi parce que ndog-ndogu àddina yi ne obstacle yi bëri na seytaane bëri na ñi niy fexeel bëri na mais yàlla na ci yàlla muccal te musal nu ci seytaane musal nu ci noon bi nuru soppe ci barke yonent bi alayhi salaam ni ko waxee dañu toll ci jamono boo xam ne xew-xew yi day bëri seytaane yi dañuy jóg ñi nga xam ne ñooy ay noonu lislaam ñëpp dañuy jóg mais bu lépp amee dañuy gis ne dangay ànd ak tekk ak du la dégg ci yenn Euh, jaru ko de soxna si jaru ko xam nga seytaane moom nit la mën na ne sa biir kër mën ngeen ànd euh, bu njëkk a mag ngi dañ daan wax boo ne onze billahi mu ne seytaan dañuy iblis daw waaye nii léegi boo ne onze billahi mu ne onze billahi parce que nit la comme yow la la cee dimbali coow li matu ko Serigne Fallou Mbacke sama maam dafa ne woon toq-toq moo gën moo gën moo gën yuréet yuréet day gaaw jeex soo toppee wax ji ci dëkk beeg coow leeg bi li tudd bës bës day rey nit dara jarul base base mooy lan fexeel sa connexion mooy sa ruu ak sa diggante sa sunu borom fexeel mu mat mat gi muy mat mooy ngay wax dëgg ngay def te yàlla tax soo ko defee loo bëgg di nga am te euh, bi jëkk doy waar mooy réseaux sociaux yi yéen waxuma leen mais léeg-léeg ñu gis benn waaye wax ñu jël ko coupé ko collé ko jël wax jooju génn ko mu am ku mu am ku mu arrangé lu boo ko defee mbëkkante am yàlla noonu si yàlla musal loolu rek moo di coole ci dëkk bi. Euh, ñu bëri yaakaar ci yow ngay suñu sëriñ tamit euh, ñu dégg fan yi tamit juma yi liñ leen di attaqué dafa bari di jël ay yoo xam ne di ko def ci ay juma te kenn rafetluwu ko ñëpp génn di ci wax lan mooy ci seen position ci l'islam dafa yàgg am noonu l'islam yàgg na am noonu te noonu du dañ baat nay tukki jéem nañu ñu weex ñi mënunu def nañu mënunu waaye danoo formé ay nit ñu ne suñu biir ñu nekk ay nit ñu ñuul di ay sénégalais nekk suñu biir lu sunu mag ñi wax ñu weddi ko andil lu ay yoon yu bees yoon yu bees mënatu fi am li fi seexul xaddim def barke alxuraan kenn dootu ko fi defati géej ga mu demoon wóor na leen ñiy wax ñëpp wóor na leen kenn mënu ci dem géej dañoo xam dëgg wóor na kee barke bàyyi laay kenn mënu ci dem géej waxuma la dem géej gi rek nga nga def fa juróom-ñetti at yu manqué 3 mois 8 ans yu manqué 3 mois nga def ko ci benn île moom ay gunóor am ay jaan am ay rab am ay jinne waaye nañ waxante dëgg ba Samba Laobé bi àndoon ak Seexul Xadim dem fa riir mi ne woon ci île bi moo ko jaaxaloon moo ko jaaxaloon keroog Serigne Touba kàbbar na julli na deux heures de temps bi mu sëlmalee dafa ree Samba ne ko looy ree yow fii ñu nekk ni mu naqare looy ree mu ne dama xam ne ne woon nga ma nag mu duñ bokk suuf ka tey sama der bi laay bokk yow ne ko dajaleel samay bagage ñu ànd Samba Laobé dajaleel Serigne Touba bagage Serigne Touba ne ko bootul sama gannaaw te bul xool Serigne Touba di am riir mu ko yëkkati dem sàmba di xool benn bët ba yàqu kon nga xamee ne sunu mag ñi amuñu morom loolu ku nga fi mën def Seexul Xadim li mu def ci gabam gële def ko woowee ay sëriñ ay cheikh ñuy jël ay étiquette di ko dugal ci ay juma comme naan dañu war a séddale maa ngi jégalu ci kàddu bi ay kàppoot ci ay biir juma te ñu ay jullit di ay sénégalais ñu leen di woowee ay cheikh ay sëriñ ñooñu. mën de li ma ciy wax ñi leen di tontu ñoo ko def man de du ma leen tontu lu waaye def sa bopp ñi leen di ñoo ko def yàggul àllaaxiraa ngi lu waaye def yaa boo jëlee diine ji di ci wax loolu ba ka gàkkal yaay gàkk rek waaye diine yàlla ji ma Muhammad ji kenn mënu ko dem mooy li wala wax mag ñi defar nañ ba dem Seydi Hadji Malick defar na ba dem bàyyi laay taxu ni yàlla ma yónni puus géej kenn dootu ko fi defate nañu dal te topp mag ñi seen jàngale moo gën a wóor loolu rek yàlla na yàlla sax jërëjëf yàlla defal leen xéewal yàlla yokk télé bi incha allah rabbi jërëjëf